si yéene bi ñu am tey ñu fekkee bilan d'étape bi nga xamante ni moom lañ def ndax si ay fan yi weesu dañ fee woote woon ngir def lancement de d'une initiative citoyenne pour lancer un million de signatures demandé ko askan bi ndax tey dañoo jàpp ni un million si gis-gis dëggu dafa am benn jeexital boo xamante ni war na yegg ci askan wi parce que citoyens yi kat am nañ droit wax kan lañu bëgg bu continuer liggéey bi nga xamante ni moom lañu bëgg ci seen Sénégalu ëllëg si loolu nag bi ñu demee demande askan bi si bés bi toll tey am na plus de huit cent mille signatures te suñu objectif moo doon ñu am un million de signatures mais cela n'empêche que dinañ continuer liggéey bi pour dem recueillir encore les un million de signatures yi nga xamante ni si mois de juillet lañ ko bëgg a pour ñëw ni kat fi nga xamante ni am na ay sénégalais yu d'accordul ni troisième mandat mën na am mais am na un million de sénégalais yoo xamante ni d'accord nañ ni le président Macky Sall war na continuer pour mën a amaat beneen deuxième quinquennat parce que lu tax loolu mooy tey yéene ji dafa fort ndax ku xam Sénégal xam ni dëkk jàmm la dëkk stabilité la mais également dëkk boo xamante ni dafa nekk ci yoonu liggéey te loolu ñu gis ki président Macky Sall nekk un travailleur nekk un bâtisseur laaj ci beneen côté bi ñi nga xamante ni tey dañ leen a considérer comme ay yàqukat ndax bu nit di defar nit nekk fële di yàq je pense que ni loolu du defar suñu réew donc moo tax tey ñu ne le Sénégal a changé de camp Sénégal léegi nekk na si yoon boo xamante ni euh, dañu war a conserver suñu stabilité ndax li fi xew ci fan yii yëpp wane na ni li ñuy nekk sunu sunu entourage jar na tey xel xam ne am na ñoo xamante ni yéenewuñu Sénégalu jàmm am na ñoo xamante ni yéenewuñu Sénégalu dal am na ñoo xamante ñoo bëgg Sénégal bu tàkk te nag moo tax askan bi nga xamante ni tey. ñoo jël initiative ak ànd ak man si la collecte de un million de signatures ñooñu ñooy ay nitu dëgg ñooñu ñooy nit ñoo xamante ni Sénégal bu développé lañu bëgg ndax tey ku xool li fi président Macky Sall def su ma ko fee lim du ma jeexal mais xam na ni Sénégal jóge nañ ci Sénégal indigent pour dem vers Sénégal émergent di wax ni rek choix bi nga xamante ni dañ ko porté choix bu noobu la